man génn naa ci yooyu bu yàgg xale ya fi nekk samay doom màgg nañu donc xam man moom am na yoo xam ni duutuma ci dugg am na ci yoo xam duutuma ci dugg bientôt ma boucler sama sama 70 ans 5 hmm? janvier bii di ñëw donc te man kii wax ak man ba muy wax ak man def ne ma woon 70 yi dina mat rek néew ma woon. néew ma nag moom rek ngay dund néew ma dinga nga dundaat leneen waaye daf ne ma woon daal dina mat. daf la assuré sax ne di nga dund cent dix ans. waaw loolu nag yàgg na depuis plus de trente ans léegi nag maa ngi négocier. pour am ñaata. cent nangam. pour am cent et quelque. sama maam onze ans la dund. négociation yi maa ngi négocier. négociation yi fu mu toll 28 mbaa 33. plus waaw ah, non 33. kii négociation yi nag avec le d'espoir nag. Hmm. moom lan la nangoogum yokkal la ci. déedéet kii loolu sama diggante ku tedd ki la. man su ma ko waxee li moom su ma dama ko dul wax waaye lu ma ko wax lay def sama diggante moom. ah Mbacke yàlla na nga yàgg loolu te <laughs> yàlla bàyyi la fi bàyyi eh, di sant itam sama grande sœur soxna May. Mbacke ndax big rek laa ko wax ci téléphone mooy sama taawu baay. waaye daf ne ma ah bu dem mënut a ñàkk kay may dem. nga xam ne fi mu nii moom. wax dëgg yàlla te ma waroon koo jox oto waaye bu bees sàq laa koy jëndal bu ma wuyu. ndeysaan yàlla na ko yàlla hmm. dafa c'est grave. dafa da ma kii loolu wax naa ko soxna daf maa touché. ndeysaan loolu la ma wax ñaanal njabootu ñoom xam na ñun bariwuñu